politique on dit jamais euh, mën nañu ànd ak jomaay comme mën nañu demal suñu bopp ndax bul fàtte ni biñ fi euh, élection yi jàll législative yi jàll parti pouvoir muy vonte ànduñoo ak moom te fexe nañu ba am groupe parlementaire élection yi yëkk a jiitu muy 2017 tamit ànduñoo ak moom te amoon nañu suñu groupe parlementaire fii nii mënuñu bañ a ànd ak ñoom it comme mën nañu ànd ak ñoom waaye li nga xamante ni moom lañ toll daal ñun fii nii moment bi mooy lépp lu ñu maa a def daal jëli Karim ñun mooy mooy mooy suñu objectif te it man am naa ci yaakaar ndax li adhéré bari na muy ay ancien ministre muy ancien député ñëpp ñu ngi suñu gannaaw daal kon yaakaar naa daal euh, Karim dana ñëw. soo gisee olof wax ni euh, euh, lu deful wax waxul xam ay du njàmbat loolu mooy li am am na xëy na ñiy jaar ñiy jaar ne am na doomane amul ndax yaa ma gën a xam ndax su ma su mbang waaye li ànd ak Karim. wala li ànd ci euh, euh, tënku ci parti bi moo ëpp parti nag du ñàkk euh, ñu jaar nii ñu jaar ndax train la su ñuy dee wàcc ñuy yéeg su ñuy dee dee dee xëcc jëm fee ñee di xëcc mais li ci am solo mooy PDS loolu moom mooy mooy point fort am boo seetloo depuis Ablaye Wade saa bu bu demee ba nit ñi ni PDS day tas keroog la ñu gën a àndandoo moo tax man daal lii man dama ko defee rek bitis de mer parti bi c'est pas parce que euh, euh, dafa yaakaar ne bu dem àndul ak euh, parti pouvoir bi du am dara déedéet parti pouvoir bi ba ñuy ànd ak moom dafa nekk opposant nu ne opposant bi ñu waxtaanee ba juboo kenn ku ci nekk seet fa nga ëppee doole nga ji nga nga jël dem foofu jox nu ay ay ay ay député ndax ñun ak yàgg na ay ay député te ànduñoo ak Pastef ndax bi ñuy ànd ak Mamadou la Diallo ak Abdou Mbaye boobu xam nga ñoom amuñu poids te teewul ba ñu génnee am na lu toll ci 17 député kon suñu ànd ak ñoom am 27 députés c'est parce que moomit it baax nañ ci moom ndax zone yi nu yu nu jël yëpp yooyu suñuy zone la fu ñu am député yëpp ñun ñoo ko moom. loolu moo tax euh, bi nu ak ñoom xëy na ànd bi dafay gën a euh, yokk suñu doole yokk waaye euh, PDS moom mën a dem sans ànd ak parti au pouvoir. bi bi ñuy ñëw di jël ko ci suñu loxo ñun ñoo leen ko jox 2019. dañu war a dem ay élection euh, ñun bokkuñu présidentielle ñu laaj Ablaye Wade ne ko fan lay jëm mu ni sëf Macky et ah, Madické ñoom bu leen ànd ak kenn léegi nag yéen ci seen bopp yéenay set entre Sonko Idriss Seck et euh, euh, le PUR bi mu amee ñun ñu saaroo xam nga PUR moom du am ci ñun lu bari ndax parti bu ndaw la ëpp ci ñun Idriss Seck la ñu àndal ak Sonko bay kii nekk première kii nekk deuxième kii nekk troisième xam nga électoral boobu daal tak ci ñoom ñu dem législative euh, kooku kenn xamul euh, euh, départ législative boobu départation parce que noo noo wallu wàllu yeewi kon ba léegi leeragul bala muy mën a leer daal élection yi ñu jëm ñoom ñu nu bañ a ànd ak ñoom ñu jaar nee nu jaar nee su boobaa ci laay ci ngay mën a xamee ci lay ñin ñi mën a xamee ni PDS kat ñàkk na Touba waaye pour le moment PDS Touba mi ngi suñu loxo. famille euh, euh, kuréel googu waaw kuréel googu dégg naa ko contacté nañ ma ndax man dama ci baree xarit kuréel googu mu ko déggee am na ci ancien ministre boo xamante ni na ma bi ma wooyee def na ma euh, ñu de ñu ngi tabaxaat PDS ah ma ne ko tabaxaat PDS mu reeni ma non cest coalition bi bëgg mooy famille libérale boo xam ne ñëpp dañ ciy ànd. ndax li dañu tasaaroo waaye ni ñu koy defee mooy surtout yéen anciens yi ndax dafa mel ni yow da nga arrêté sa activité euh, politique mën ko non c'est que man mu ne ah man ko dama loolu jot mais bi nga xam ne xale yi koñ bi dajaloo nañu bëgg ma feeñaat loolu moo tax temps yi nga gis ma waaye nag mu ne ah man ko man maa ngi ci parti bi ndax yéen bu fekkente ne yéen bi euh, ngeen àndee ak ñun ñuy dem di dem di ba yàlla àtte Macky Sall def li muy def dem yéen ñëpp da ngeen a bàyyee ko ci Ablaye dem fekk ko dem ngeen Macky Sall nekkatu fi ngeen bëgg a dellusiwaat ñu politique ñun nanguwuñu ko man moom d'accord moom ñoom Modiane Fada Babacar gay ak ñeneen ak ñeneen la ñu nekk lañ ci nekk ñu nekk ci li nekk ndax ñun ñooy ñoo yar lu baax li waaw. man man ànduma ci ndax su ma nee ànduñu ci day mel ne parti ko man ànduma ci man mu sunu mooma àndu ci. Euh, euh, ci gisee euh, situation réew mi ci jamono ji nga xam ne xëccoo bi tar na diggante pouvoir bi ak opposition bu Bokk Yaakaar jëm ci euh, war tas ay institution yu mel ni HCCT ak CSE nga xam ne mel na ni député yi dañ koy jàngal euh, ma ko jàngatee boo tuddee loolu rek dañu naan nañ ko tas ndax ay institutions yi jël xaalis la waaye dafa dayul. ndax yooyu boo ko xoolee ñoom ñaar quinze milliards waru ko passé pourtant buñ ci boole woon fon politique gu premier ministre fonds politique gu président bi ka xam ne lu mu dee dee na am 20 milliards kon ñëpp dañ koy d' accord moo tax ma ni politique laxasu na ci man su fekkee ne man maay Sonko ak Jumaay damay jël institution yu ñaar yooyu ak fonds politique yëpp génne leen ndax fi ne nii mënuloo euh, ni man damay euh, génnee ñaari institution yooyu. bàyyi fi fond politique fond politique moo gën a bay xëy na nag euh, euh, euh, politique bi ci laxasu moo tax def ko te moom dafa aramaloon ni boobu xaalis daganul kon léegi soo demaatee ba ci biir nga bëgg a jël ñaari institutions yi leen kooku waa benn bokk yaakaar c'est des bonnes guerres ñoom ñoom man bu doon man damay bañ waaw loolu loolu rek moo nekk